ay embouteillage yu taax la ñu nemmeeku fii ci diwaanu Colobane loole nag daal di tax ba dem bi ak dikk bi daal di tagatembe chauffeur si nag di xamle loolee lenn dong moo ko waral jàpp bi nga xamante ne takk der yi dañ leen koy def ci digg tali bi ay liggéey yoo xamante ne nguur gi daal dina koy sumb te ba léegi yembul. Euh, circulation bi daal liñ ci gis moom mooy maanaam euh, dëkk bi xat na waaye liggéey bi dafa xaw des tuuti des gi mu xaw des nag dafa bokk suñu bokki takk yi. dafa am ñoo xam ne dañuy liggéey am ñoo xam ne ah, ah circulation bi nag maanaam li nga xam ne moom moo koy wàññi xañ na gouvernement bi mi ngi ci ndax liñ ci gisagul ci diggante croisement Cambérène ak buntu Pikine pont d'abowaat yooyu baax na. pont d'abowaat boobu dina waral heure bu paree dina wàññi ci embouteillage yu bëree bëri ndax oto yi dañ doon daje ci rond-point yi ndax rond-point yi ni ñu ko bu mag heure bu feesee rek pour nga tijji ko du yomb bu fekkee ne rond-point bu ndaw la vent dégage lay doon rek dañuy taxaw di dégager mais loolu amu ci dafa rëy rëy gi nag heure bu demee ba oto yi circuler rek bu tëjee dootul tijjeeku kon li ñuy def Cambérène euh, li ñuy def Cité Lobatt Fall ak bundu Pikine point yooyu ànd naa su paree na jàll si croisement Cambérène su jàll see croisement ragal naa ne dëkk bi dina af bu boobu passé maanaam diggante pompier ak Colobane diggante pompier ak euh, ak euh, fii li ko tëj moom it maanaam deux vents yi ñu koy def dañ koy kepp de trop dañ ko dañ koo sewal nañ ko ubbi su ko defee maanaam foofu day mën a am 4 vents mais 3 vents la rek yi yéeg ci kaw pont bi bu ñu yéegee ci kaw pont bi pour ñu daje ci kaw wàcc ci kaw pont bi daje buntu euh, Grand Théâtre loolu mooy tëj mooy mooy mooy tëj biir Dakar. ñu wàccee si Lobatt Fall bi rond point bi gis nañ ni ñu ngi defar pont bi na nañu yaakaar ne su paree dina bàyyi mais ñuy euh, sant profité waal di sant leer naa ñaa ci ni muy monter circulation ndax tamit gis nañ ni bu taxawee ci dëkk bi lu bari day wàññeeku. parce que duñ téye kenn ci kaw télé bi naa la seeral seeral parce que dafa am heure boo xam nit ñi dañoo war a dox dem doxi seeni i soxla bon paree ñu ñëw Cambérène suñ ñëwee Cambérène ñu yaatal foofu ñuy bàyyi di xooloo tey di leen respecté circulation sofër tamit respecté li ñu war a def bu ko defee ambiance bàyyi buñ delsee ñu ñëw buntu Pikine boo jógee Sibs ñëw war a ñëw buntu Pikine devant lay def wër rond point bunt Pikine bi war a ñëw Cité Lomar Fall foofu da ngay gis oto bu yëpp bagage duñ ko ba mu jàll dañ koy téye dañ koy téye lu yàgg nga gis ku ñëw téye di ko contrôler ci diggante bi dañ koy téye genn waa mooy dox kenn du mën a jàll. loolu tamit suñ sañan ñu wax président yi ñu dimbal ñu ci loolu parce que montage bi boo xoolee man dama jaaxal man en tant que chauffeur ñu war a defar dëkk bi da ngay wàccee péage bi gendarme yi taxaw droite foofu lan lay seere ñaari oto ba ñett téye fa di contrôler nga jéggi ñëw rond bi xel kom baas nga gis ñaari booy taxaw kii téye kii téye ba muy ñetti njaganjaay oto bagage bi ñëw ñu téye loolu tamit suñ sañeen suba teel gi muy dañ dañuy téye sa trop circulation bari bi moom métti na trop waaye li ko gën a indi mooy rond-point bi xat na boo xoolee jaaykat yi ci ko tali bi la ñuy rang soo xoolee aussi parking bii ma ngi ne yaa ngi dara nekku fa toog mu nangul oto yi gaare fa li gën a yóbbu embouteillage bi loolu ci la bokk bon alkaati aussi buntu ba dañuy bloqué oto yi di toro boo xoolee ba doon mën juróom-ñaari alkaati ngi taxaw ci bunt ba di bloqué oto yi te loolu moo tegul fenn. policiers yi ñoo gën a xatal dëkk bi yàlla xam na ko policiers yi fii la ñu oto ci bunt bi ci autoroute bi wóor na yàlla la ñu arrêté oto di ko laaj ay permis yooyu fan la am wëral partout dans le monde wëral monde bi ba xam di nga gis policiers mel nii Sénégal fii la waaw mais la vie moom problème amu fi solution la ñu am ñun lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi njëge jaay ñu liggéey parce que ñii ñu ngi sauver ay doomu ñi fi nekk di fi liggéey bu leen njëge jaay yóbbul ñu ñibbi nan la ñuy ñibbee day métti. waaw embouteillage bi moom wax dëgg si yàlla garage bi ni mu xatee moom métti na lool métti na lool parce que garage bi moo ndaw quoi oto yëpp xajuñu fi. waaw da ngay ñëw war a dugg mais doo am place foo dugg ba taxaw quoi da ngay wër ba sonn doog a am place sinon sax des fois da ngay ñëw ba si biir gaz bi doo am foo taxaw dañuy mujj obligé la génne génnewaat la gaz bi nga dem wariwaat pour duggaat am daal si moom wax dëgg si yàlla moom métti na lool métti na trop trop trop trop. waaye tamit ca beneen wàll ba ñu ngi xamle ab garage wala sax ab béréb boo xamante ne dañ ko daal di teg fu fekkee diwaanu Colobane woto yi mënoon kaa gaare ñu daal di koy tëj loole tax sax ba ñii di dawalkatu woto yi fari fii ci diwaanu Colobane di sàkku ñii di suñu autorité ñu daal di tijj bile bërëb ngir nag dem bi ak dikk bi gën a yomb fii ci diwaanu kolobaan kon maanaam parking bu bu Colobane bi ñu tëj pendant juróomi at ñu tëj ko. te xamuñu lan moo ko tëj ñuy wax diggante préfet ak diggante sitik ci li moo tax ñu tëj parking bi loolu it ñoo ngi doon sàkku maanaam ñu dimbali ju ñu ndax boo gisee oto yaa ngi nii feex dellu ci garage bi ba génn ci sortie bi fi mu ne oto yaa ci kaw pont bi kon loolu it bu ñu sañan ñu dimbali ñu ci ba ubbil parking bi ñu mën a dugg ci parking bi ndax parking bi taxi fi nekk fanaan dong lañ fiy def buñ fanaanee bu asamaan setee fi mu ne parking baa ngi ne fi defuñu fi dañ fiy togg añ fi ab añ nag wërta a tëjëb dëkk war nañoo mën a ubbi parking bi Njaga Njaay yi dugg ci biir parking bi su ko defee rond point Colobane libre Colobane dugg gi ak génn gi yaatu loolu moom ñoo ngi koy ñaan maanaam autorités yi ñoo ngi leen koy ñaan ñoo ngi leen koy dagaan pour ñu jàppale ñu ci lu ñu gën a mën a jàppalee. da ngay ñëw Colobane war a dugg parking bu mag mi fi kenn jàppale wu ñu ci kenn jàppale wu ñu ci oto yi coono bu ñu coono parking bi ñu baare ni ay taxi lañ ko jox moo ñu ko baareel te man taxi pour man. war na mën a raxas génn dem mais parking bu tra ay ay ay nangami mètre ñu def ko baare ko kenn mënul dugg ñun sunu oto yi bu ñu agsee Colobane boo duggee taxaw di dugg da naa doo dugg boo taxaw ñu sabo la fay la 6000 sabo yi ay mel ne ñun dañ sunu xaalis dañ koy jël ci noonu te ñu ngi fay carte grise ay assurance lépp la ñuy fay ma bëgg sa bëri comprement comportement bu rafet war a mën a xam ne ci dëkk bi leen bokk waaye ñëw gaaru ceer ngay dugg ñun la doo dugg taxaw ak sabo dawal moto ñëw fekk sa oto taxaw ay raam ci raam bi laa la wax la ñuy tekk sëgg forcenteeg yow sama oto bi fay loo ko 6000 francs te gisuñu kenn ku ñu ci dimbali parking bi ni yaa nga yaangaaral boo fa duggan bu la nee nga ñëw ñu dem bayaal bu yaatu la saa yaa waxee ñu ne ñun moomuñu ko donte ñuy dugg di joxe 200 francs ñu dugg dagg ticket 200 kolobaan looloo ko téye fu waay mën a dem na xam ni kolobaan parking bu magang ci biir dem dikk dugg na ba jeex baariwut yoon wi Njaga Njaay leen baaree yoon yi mooy parking baa ngi ni yàng te kenn dimbaliwuñ ci amunu ci dimbali lu mat juróom-ñaari at ngi dugg gaaraas parking Colobane mi ngi yàng kenn dimbaliwuñ ci bu ñu taxawoon fii xëcc oto yi wala ñu yoddu oto yi liggéey ci oto yi loolu du am waaye fi nekk ni ñu ngi taxaw ci digg boo leen dama tey fenn ngi te tubatugul fenn baa ngi nii xool war ngeen ngeen ko dara nekku fa buñ bàyyi woon oto yi dugg fa kon lii yëpp du am wala dana wàññeeku tuuti bu ma circulation dana wàññeeku mais xool gaa bi oto yi ni taxawee benn oto mënut a dem gaz baa ngi fees del parking bi dara nekku fa te mënuñ ñu bay oto ñu gaaref pour lan loolu lan moo tax te ñun wax nañ ceeg préfet wax nañ ceeg directeur sidit wax nañ ceeg euh, euh, directeur treize ku ne wax nañ ceeg yow pour parking bi oto yi di gaare fa mais xaw ma kees ki daal lu tax mu dinañ ko gaare fa moo ma jaaxal man ba léegi man vraiment moo ma jaaxal man. vraiment parking bii nii deuxième parking bii nga xam ne nii xam nga gars di bi defaree garage dem dikki bu pare ba léegi dem dikki mi ngi taxaw foofu mais fii nii moom nañu koo badil yaatal gars yi bu ñëwee dugg fi bu ko defee embouteillage bi si bunt bi fi dina xaw a wàññeeku quoi pour man waa mais ñu tëj ko nii ay quelques taxi yi paan ñoo fay taxaw ak yooyu noonu amul njariñ daal man pour man quoi bu ñu ko baddiloon xam nga gars yi buñ ñëw duwaate ba mu jekk normal yaakaar naan daal embouteillage bi si si rond point yi fii nii dina xaw a wàññeeku quoi. ah parking bii nii parking bii mooy lépp. parking bi ngay gis nii parking bi dara ne ay taxi yu fa gaare fa ne benn amul lenn luñ fa def Ndiaga Ndiaye dañ fa dugg gars yi ñoo sonal seen bopp mais gars yi nangu nañoo liggéey xam nañ li leen war xam nañ li ñu bëgg président bi du ci président bi de président bi amatuñu lenn lu ñuy wax ak moom mi ñun xam nga ka la ñuy waxal policiers yeeg ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñooy baare Ndiaga Ndiaye masque boo xam ne même boo takkee masque gars yi la agressé sax ne la joxe xaalis par force fan la am gisee yow parking bi yow par force yow nit jàpp la ne la léegi-léegi nga sol masque mën na la noonu da ngay joxe xaalis par fii la am nañu bàyyi parking bi njaga njaay yi dugg nit ñi liggéey am seen jàmm ñi am alal am nañu alal ba pare ñi amul alal dañuy war a am alal ñi am nag nañu xam ne ne ñoom it bés dina ñëw dinañ ñaax ndax àdduna ñaara fi am am ak ñaax loo am am am am bu yàggee di ko fi ba ñi ñaax it ëllëg dañuy am